wallahi ko gonga yadibaki ko fabati ilu yadde ilu yaddelam ɓe eh, ndeysan ilu yaddel yaddelam o oh. delu ku leelu samba yow samba mu jotomroje farmata hawa moɗembeɓe ajiratu mariama yayam ndeysan deɓe wuro bandu bandu o oh. sinno ko wona mbënd mi yeye ko waas de mi ajaratu Mariama Kamara mi woy yaayo mi yaay yaay yàlla suñu tey maam oh kerno dañuy xàppee kenn du nu tere waaw kon di lu yàbbee lu yàbbee lam bul su ne lu yàbbee lu yàbbee lam billaay waxal kiti kiti saaya bolo yaa saaya alfayu jey alfayu baatini samsu samaru si ɗen ko indeji jinnaji ey mo suusi kala mo suusi kala mo suusi arga mo suusi hay goto suusa sona camma la ilaha illallah jom nani ki am ñaano wajur yaano yaano dom jo terel yaa yaay bi muy metti looli yaay yal na ma yàlla defal sama yaay di ma seedal yaay Cerno di seedal Cerno oh billaay xaru Tabaski ni mu jafee woon naay su bàyyi ma saana xeb lu mu yar mu jël kon di lu yàddee lu yàddee la à l'âge de neuf ans la commencé def ay teraanga ji billaay li nga doon danga koo doon billaay li nga doon danga koo doon alaaji su dee tëggee tay sama maame Afrika jooy na weet Cheikh Oumar Foutiyou Tall dem naay ko di Adama ay see Ilimane Siré mm. Samba Demba Ali Moutar xam na say maam mm. man de na wut naa la yaa ma leen gënal bilaay kon yàlla neexul léegi il faut ma dem ba biir géej ma jàpp na fa saa jëm su ma neexee ma jaay ko jox ci ma bu dundee lapita ma joor ay waay di ma jaayu yaasin yaayu Adama Njaay man wóolu naa laay waaye di yaay di bëri bëri yaay danoo gën a tee lool ah. yaay Mariama ku muy sa yaay ay waay jiw jiw mais suba nga dama ne. alors Thierno. dama ne. yàgg na. alaaji Thierno. yaram dawatina. xol seddatina. nga nekk nit ku baax. neex ku am jàmm. alaaji Thierno ku lay laal. na la laal ci say wajur. alaaji Thierno ku lay laal. na la sey ci say maam alaaj Cerno ku lay laal nag dëgg dëgg dëgg na la laal ci ginnaaw yàlla ak yonent bi na la laal ci ashadu an laa ilaha illallah wahdahu laa sharika lahu ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ndax amoo frontière fenn ci diini ndax dem da ngay wax ba ne carrément christian yi daal jox li ñu moom alaaji Cerno sa naw la boo nekkal bàyyi na la xam lii yëpp nag bu mel niw na sunu yaay ju tedd ji tubaar kàlla ji ajoor ko Mariama Kamara mu tedd mii fa tabaarakallahu moo ne de koy dili yaame laa ni day jàmbaar kono dale cerno mi saw ne wini mi di ndaanaan ne wini mi ah anta borom neewi diw diw diw ndeysaan nga de koy dili yaame laa ni abu tudd nga ku baax kàlla cerno mu le saw ne bu kay duniyaa ko am yar ko am ndeysaan tudd nga ko am yar ku àdduna bi bàyyi xel ndeysaan alaaji Cerno xol dafa seddati li ko def amu mooy yow yaay moom alaaji Cerno nitu dëgg nga alaaj Cerno doo raay doomu aadama. abu cuma la bëgg la ci biir xolam. dëkk ci biir naan xolam. waaye nag koo dellu na ko. abu maa la gën a bëgg fuuf. wax ci say kanamu yaay. wax ci say kanamu gëwël. wax ko tubaab kàlla. ah sa kanamu yaay ju tedd je ajatu Mariama Kamara bu tedd. alaaj Cerno doo jay doomu aadama. alaaj Cerno mënoo ko. xamoo loolu da ngaa toog. nga ne sama yaay ji tubarkal bu ma waxtaan ak moom rek léegi léegi rek mu am nu mu doxalee rek ma dal ci koom déedéet c'est parce que da nga di nitu dëkk ala ceeb la yàlla yàlla guddal yàlla yàlla wala say cër suñu doom nga xamante ni le prince héritier nga xamante ni moo ñëw yàlla nu yàlla may ñuy dem di fekke di fekk bañ koy ñaanal fa tabaarakallah maamam jee séeram jee fekk a bañ koy ñaanali soxna nga fekk ko te yàlla mën na ko te bokk ñaan yàlla na ko ala ceeb la ak yaa baax ak yaa yàpp parce que yaa yiw nga jël nag ki nga xamante ni ajarat nay seet sa jigéen sa xarit nga defal ko teraan abu sama xol dafa set sama xol dafa set déedéet seetaanati bu nuy jaawaleeti ki bëgg yaayam ak kii tiital yaayam mm-hmm. doom buy tiital yaayam yàlla du ko cëral ci àdduna boo gisee yàlla def la nii mu la def ceer na mu lee saaw danga xool ci fraaw naay mm-hmm. moo gënoon bon ci ku yàlla bind waaye fonk ka mu fonkoon yaayam tax na bilaay mbooloo mi dañuy bari bari moo leen ëpp doole mm-hmm. tey ji melo ni firawna di koy muhammad rasulillahi nga sàlloo mm-hmm. di nga julli di nga wooree te yar la fañ la waree yaree piir nga noon bokk jàmm am ñaanu waajuri yaay ak a jafe ci jamono ji toll xanaa gisuloo ku mel ni suma jigéen yaay yam ngi ba tey di ko ñaanal lu ma am jox na ko yaayam waaye cerno ñeewuloo kenn ñu il faut ma dem ba biir géej man cubaloo mën na ko jàpp sama jën su ma neexee ma jaay ko cerno juróom ñetti junni yàlla noppi naay xanaa xamoo bu subaa lépp dina leer lu waaye doon gam-gam lee abu cubaloo dell si naa yaay tey jii ñëpp xam ne dëgg rek kay dëggee cerno nee naa la bala ngaa xam ni baax am njariñ ñu fay la sa bor ngay foo di ree xoolal nag ma lebaloon lum la jëriñ tay mingi mengu mboor baax nga lool te dabuwoo ko sa yee ko waxandoo sa yaay yee ko waxandoo xarit yee ko waxandoo wuy yee ko waxandoo ba tax na noon yi doon yàq ay dara kii daree taxaw na mu seede kiiw lu baax dafa am benn jour ma toog seetaan muy weeru koor mm. am benn xale bu góor bu dugal vidéo di wane gars yi jóge géej entraînement bu nu xiifee bu nu jégee bu nu ñëwee kër cee moo jox leen mburu jox leen café jox leen adiya ci suba si may yeewaat boo jël ñaari vidéo dugal ma gis ay maire yi way naan laa ilaha illallah mu séddale leen keroog sama kanam maa gis muy séddale xaalis bu bari maire yooyu dañ leen di faral di ngaa ngi ko ca gox boobu ñu dëkk te seeni gox boobu ñu dëkk mm. Mm-hmm. sëriñ yooyu ñooy mujj ñëw ci Thierno mii. ñoom mm-hmm. di li may wax xoolal bu baax a baax. seytaane waxul dëgg waaye yàq na fen. kaw damaa dégg gaa di way naan bisum keroog ba gaalu maam li baas di teer ca jàmm laay li maamu laay di rasuuli laay. Thierno bu ko neexoon mu fëgg dënnam ni way leen ma. waaye dafa ne nañ way bay Ablaay. gaa ngi naan sant naa yaay. sant naa la yaa nu defar baay Abdalaay xanaa xamoo moom du saw bulo jéeri hmm. noon ya doon bañ tey ñoom ñoo mujj nangu hmm. ki la xajal këram te doon kilifaay yaay ni la way sa sëriñ ba noppi matériel la bilaay kooku loo ko fayee lu dul xanaa ne ko merci tooñ nga ko ay waay gaañu indi jaawale yi kiy jayi boppam ak kiy fëgg dënnam bu leen di jaawale yaay kii xeebaate Cerno boo ko ne Serigne Touba mu ne la Serigne Touba ku baax la Cerno boo ko ne Alaaji Fallu Mbàkke ku baax la boo ko ne Maam Limaamu Laay mu ne la kooku ku baax la bu Kunta Njaasaan mu ne la kooku baax la maam Alaaji Maalik wala rek maamam ja Cerno ne na kooku baax la kon Thierno mi lan la ko waaye mën a wax fii ci Sénégal xanaa déedéet billaay wallaay man de li ma lay ñaanal mooy gudd fan ak wér gi yaram. amiin sopp naa la wóolut waaye li coow li bari bari bari lool bis bu ji te nan ko yow def ma ko sama kanam ma gis moo seen nga fay soppee waaye na nga tee am nga fay noonu ku lay noonu daa jegewul sa yaay ji yaay. keroog ba muy dem màkkatal mu karaw maa yow ko buggee woon ba nuy jëli sa yaay ji ñu génne seeti dañ la topp la kii kan la man maa leen wax ne kii Thierno Moule la keroog laa topp fàllu mi woon ca jotaay ba keroog dafa ñëw ne la Thierno xanaa xamoo fii di sa place taxaw yow da ngaa war a dugg même booy dugg nii da dugg ba ci biir biir lii la sëñ Moussa Ka doon defal Serigne Touba ndax a fekkee dañu dem aéroport bi mu ñëwee war a yóbbu soxnaam ñu yóbbu ci buntu bi ci li nga xamante ne waaw Fallou ci vidéo lañ gis ci biir ya mu waaye am yooyu yaa ngi ko noonu Thierno Bala Samb dañuy yii booy kii kilifa la. Mm-hmm. kii warul yem fii dafa dugg dafa takk bal ba bal si dugg ba ci biir biir loolu yàlla ma ko ku ne. comprendre nga mais man daal li ma la mën a wax mooy euh, ñaan waajur fi mu la mën a yóbbu dara mënu la fa yóbbu. déedéet. tàmmu ma di jaay nit mais mm-hmm. yow kuy wax ak yow sax day mel ni ku lay jaay. ci ku ñàkk xel. Mm-hmm. te yaakaar da lay jaay te te maanaam te du ay jaay dama seetlu loolu nag billaay walaay bu nit di wax ci moom. Mm-hmm. bu dee ku gàtt xel ne da ngaa ah kii da koy dee mm-hmm. mais mi nii. Mm-hmm. kenn jaay ko mi ngi nii chaque jour ma wax ko chaque jour ma wax ko man maa ngi nii ci àdduna amul ku ma ñeme wax comme li may wax te li may wax dëgg nag xam naa ko nit ko am maam nit ku dul juum amul nit ko amul défaut amul. moom day wax sax ba naan man sax ceebul des fois damay juum yàlla rek a dul juum. mais boo juumee da ngay nangu ñu lay teg ci dëgg. comprendre nga ba pare ne maam abu ci loolu man mi sax ma may conseillé. dëgg la. yow sax xeebu mën a des fois ñooy conseil man daal li ma la mën a xamal mooy bis bi tey ngeen xam ne maay sara xam sona yàlla dama sona mais ba bi ñu la ñoom yéena sagal sa yaay bu dee taxaw kenn du ko yërëm abu kon nañ yërëm nañ yërëm mais ba suma dara aussi